wàllum tàggat yaram éliminatoire mondial 2026 Sadio Mané dañ ko forfait contre la RDC maanaam euh, diggante ak république démocratique bu Congo ak Mauritanie du ci mën a participer ci éliminatoire yi yi ñuy dëgmal ci ñaari match yooyu dinañ porter préjudice wala Sadio Maguette na. Sadio Mané moom euh, euh, moom yal na ko yàlla jàmm rek. Mhm. waaw di ko ñaanal yàlla mu ñëw après dem jënd carte membre Pastef. continuer yor équipe nationale bu fekkee ne dañ dem ba ci biir mu xam ne di tënk parce que non dama lay wax la il faut joueurs nekk ay patriotes même bu fekkee dafa gaañu góor góorgóorlu après jóg parce que moment bi lañ ko gën a soxla il faut joueurs yi ñu nekk ay patriotes te teg affaire prime ci suuf xam ne ñii dañuy soog a ñëw am na prime yoo xam ne ñu fi nekkoon doon ko doon joxe ñii mënuñu ko joxe parce que am na ñu fayagul impôt bu nit ñi fayee impôt jël ci li nga xam ne mooy impôt yi ko jox. waaye ñoom nañu nekk ay patriotes tous les jours du Sénégal nañu doon dem jënd ay carte parce que nekk ay patriotes man loolu laa leen di conseillé te ñu baal ñu nag nga xam ne Sénégal day day ci yenn championnat yi ñu baal ñu li nga xam ne moom mooy ci ci ci ndàmpaay yi ñuy fubal rek ca yàlla tax <laughs> bu gars fayee impôt nag yenn télé yi nga xam ne dañu war a fay impôt bu ñu fayee impôt ñu dagg ci impôt dina yomb de la dina yomb dañ leen war a fay waaw no mais xam nga xam nga xam nga barki Demba Ndiaye mhm. gis naa fi président Macky Sall daal di décorer ay artistes décorer ay nit ñoo xam ne wax dëgg yàlla mérité wuñ sax ñu leen takkal ordre du mérite du lion man sama papa ancien combattant la am na loo xam ne bu ñu la ko takkalee tey militaire bi nga xam ne dafa gaañu am na fi ay militaires yu gaañu yu am ay bavure yoo xam ne dañu leen dagg seen loxo te keroog bu leen di décorer décorer wuñu leen ñu jël ay ñoo xam ne xiis maa ñàpp dëgg ndaat saay ay mbandkat jox leen ko kon tey nii ñooñu tey tey tey tey tey tey tey tey dafa mel ni ñoo gën suñu ay ay ay force de l'ordre yoo xam ne dañoo dagg seen tànk ana waa ji nga xam ne dañu daggoon loxom ca affaire bi amoon fii ci élection ci ci ci ci ci démb. manifestation yi waaw waaw oo ñooñu gisoo leen fa ak ñeneen ak ñeneen ak ñoo xam ne dañ koo mérité ay enseignants yu ko mérité ay nit waaye da jël ay ay mbandkat yoo xam ne wax dëgg yàlla man li ma ci boolewul sax mettu ma parce que man lu dara. <laughs> mais vraiment waroon nga ci waroon nga man dama ne. am nga ma dama da may dimbali sax lance un parce que démb man Tulaay wax na ma ko maa ngi wax ñaan ki nga xam ne mooy ministre de l' agriculture man Kouthia je m' engage doon ambassadeur ceebu waalo ndax bi ma ko nekkee ci jamono Macky Sall dama ko def ba ñëpp xam ko mu dem ba Kaffrine benn sëriñ Mbàkke Mbàkke na ko bu ñu yow bul ñu am dara loo xam ne dañu la koy sant gërëmal ñu Kouthia parce que ceeb bi bu jaree yàlla Kouthia tax bi mu ñu def nag fu ñu dem toog ca pare bi faale wu kon tey dama bëgg ministre bi nga xam ne mooy Mamoura Diagne ne ko Kouthia nee na il est l' ambassadeur du ceebu waalo au Sénégal te dama bëgg Sénégalais di lekk ceebu waalo di ko consommer di ko lekk moo gën ëmbaralaat ak yeneen yi nga xam ne day sekk biir. monsieur le ministre dégg nga dégg nga message bu ko defee nag su ko defee. mi ngi noonu répété ko mu déggaat. monsieur le ministre. sa camarade à être l' ambassadeur. Lamine wax ko mu jàkkaarloo ak Sénégal ñëpp ci boppam daal di koy ko lekk su ko defee euh, man bu ma sax fay impôt man laaj ma impôt laaj <laughs> bu fekkee dañuy dagg loolu bu jox ma impôt sax baax na je le fais gratuitement laajuma ci dara dara dara dara. dugg ci foyer sénégalais yi relancé waat ceebu waalo sénégalais mun koo lekk pour autosuffisance alimentaire daa dugg ci biir réew ñu koy consommer nag normal di ko jël parce que am na ceeb boo xam ne mooy jóge Guinée mais pëlafouta yi seen ceeb yi nga xam ne moom lañuy jaay ci anglais yi nii nii nii mm. mais Guinée lay jóge mm. te sénégalais dañ ko dem di ko lekk ay pëlafouta di ko lekk mm. mais pourquoi ñun ñuy jël ceebu Guinée di ko lekk te am suñu ceeb di ko bàyyi xëy na dañ ko mënul togg. ñi nga xam ne ñooy importer riz nañu bàyyi importation riz bi ñoo jël li xam ne mooy ceebu waalo ndax ceebu waalo ci boppam am na ñu doon continuer ba léegi Sénégal lañ ci jàpp te ba tey mu dox am na ñu koy continuer. 8000F mm. la saag bi di jàpp. différence ak bële ëpp na ay 10000F jëm kaw en tout cas monsieur le ministre en tant que Kouthia maa lay wax ne pare naa pour accompagner la fii ba 20 ans ci li nga xam ne moom mooy ci. Euh, euh, euh, <coughs> ak ah, 20 la. parce que dañuy toog ba 20 ans ñii duñ fi jugee ñii dañ fi toog ba 20 ans maa la wax de incha allah bu soobee yàlla waa kay ñu koy ñaanal yàlla bu Aliou Cissé bàyyee mu doon patriote dem yor équipe jënd jënd carte membre. waaw le joueur yëpp nekk ay patriote bañ a laaj impôt <laughs> bañ a laaj bañ a laaj prime bañ a laaj dara. ñu football gratuitement te yàlla tax. Mhm. c'est ça la réalité waaye impôt moom dañ koy fay. des na beneen point kaay kaay. dama bëgg dama bëgg ngeen xam ne ba léegi dañ dañ dañ. ay caaxaan non du lu leer. du leer non non quelque chose de réel effectivement waaw effectivement mais mais baal baal mu seet nag parce que le message est euh, ñu jeexalee ci combat Balla Gaye Tapha Tine mais gis nga état de forme Tapha bi. Tapha Tine day daan. day daan kan. Balla. xanaa da laa woo démb. déedéet. moom muy moom gisaane. Mhm. waaw. Tapha day daan ah kon sama mbër mi amul benn gis wala. Ah, man daal gis naa li li tax Tapha di daan. Tapha yor naa ko. mais ba guddi ñu waxee ni Tapha Tine day daan Balla Balla Gaye nag bu bëggee daan tafaatin Tine na ma jege parce que sarax bi maa ngi moom. sarax bi laa <laughs> sarax bi. ko wax man waaye caaxaankat ñi xam nañ ma. dama ne sarax maa ngi moom sarax bi mu ci buntu këram. Mhm. waaw te man rek maa ko mën a génne su bëggee daan naa wax bu passé nag 48 heures. ah 48 heures non maanaam bu desee 48 heures. te ñëwul ci man na jàpp ne lamb.